sama bopp. balaa loolu référence. balaa loolu non li nga wax nii léegi léegi foog ñu foog ñu foog ñu yaatal ci. Ah, par rapport ak réflexion bi ah, mu njëkk a def. li nga wax nii mhm. quoi. parce que dama la bëgg a gëmloo ba léegi rek man contre ma loolu quoi. ñoom seen philosophie la loolu lañu gëm mais man li ma gëm laa wax man. xanaa kay léegi kenn sànq da nga sànq da nga critiqué ne pourquoi. ñu non non dama non pas critique dama ne. lan moo tax yow ñu tuddee la diw. parce que ci code yi nga wax la rek sànq bi nga commencé. ci affaire rap parce que yow yow yow sax yow bon yow da nga nekk ci benn système système mu rappeurs yi nga nekk loolu ngeen gëm quoi yéen maanaam da ngeen a gëm. Eh dama rappeur bi noo taxawal tuuti dangaa ah, wax da ngay bàyyi ma wax. xol ñëw voilà da ngeen a. rappeur nga ko seqal nga tey tey nga de da ngeen a da ngeen a da nga da nga ma dugal foo xamante ni. da nga ma fa bëgg a dëkkale te man passé naa ko weesu naa ko gis nga ñooñu di xalaat nekk ay rappeur di toj man ñooñu ñooñu man pour man dama leen a passé quoi man. loolu laa ah gëm. yow yaa passé passé nit da ngaa passé loolu laa gëm. nga dépassé nit par exemple mooy yàlla dafa ma bind. ma yor xel ñu yor xel ñoom ñu ko teg ñu yaa ngi dégg ah li ñu gëm ñu gëm ko ñu xam nga. man dama war a am lu ma gëm ma gëm ko. Hmm. ku nekk ak say principe. kon yaa yaa raw donc non déglu ma ma wax la gis nga man Moussa Yaafiné Moussa Yaafiné moom laa la wax laa tudd n'est-ce pas kon tur bi. Hmm. bon peut mais man El Hadj Moussa Wade laa tudd mais Abdou Karim Fouroum Khak par exemple moom changé na turam am na ñeneen ak ñeneen ñu fi changé wul seen tur ana lu leen yàqal tere na leen nekk ay rappeur mais yow ñooñu tuddoo lépp mais ñi changé seen tur rek nga tudd fii ah. Hmm. mais la plus mais majorité bi dañoo changé nekk Afrique. dañoo am turu artiste. mais complexe googu noonu ak système yooyu ngeen di doxee yooyu ngeen war a jël ngeen teg ko nële xam nga hmm. da ngeen di bàyyi nit ñi ñu gëm li ñu gëm di dund li ñuy dund. comprendre nga pour ñu mën a pour ñu mën a firi mais boo leen tënkee ci benn. ci benn benn mbir boo xamante ne rek gars yi loolu lañ gëm loolu lañ gëm da ngaa contre système mu rappeur bi rappeur bi nii la mel ak kon ñun du ñu mën a du ñu mën a euh, dundee lu ñu gëm quoi.